على المصطفى مني صلاة تقي ديرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله mbokki seetaan seen télévision GMT TV di télévision bu mag bi nga xam ne moo féete fii ci grande mosquée di Touba ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax dellusiwaat nañu ak yéen ci seen émission rubrique yow la kan yow la kan nag ni ma ko waxee woon ci suñu premier numéro bi mooy euh, émission la boo xam ne dañ ci wone jaar jaari mag ñi nga xam ne ñoo jël seen dund gi yëpp di ko liggéeyal Serigne Touba di ko liggéeyal yàlla ci barab bu tedd bii di jumaay Touba euh, ngir xamle leen ngir ndaw ñi mën a roy ci ñoom waaye mu doon ab soññe itam ci mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoo dund ci yoonu murit tey nag ñu fas yéene cee ànd ak uh, suñu baay suñu kilifa sëriñ xam di buso sëriñ Hamdi Bousso Bilal sëriñ Hamdi Bousso uh, nuñ ko xamee doon doomi soxna doon kilifa ndax ku wax sëñ Hamdi wax sëñ Mbàkke Kanni sëñ Mbàkke Kanni sëriñ Bousso bi loolu rek doy naa yam waaye uh, profil bi nga xam ne moo ñu tax a jóg tey mooy doon gi mu doon noddukat ci jumaa ji te ñëpp ràññee ko ku yàgg julli Cheikh Abdoul Khadir Mbacké euh, xam am di buso noddu gu am solo gi nga xam ne moom daan noddu ci jumaay Touba sëñ Amdi Bousso moomu moom lañ toogal tey bokk ak moom jataay euh, fas yéene waxtaan ak moom ci lenn ci ay jaar-jaaram ci jumaay Touba. kon ñu jox ko kàddu gi mu nuyoo rek ñu doog a tàbbi ci kon ñu bàyyi nga nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi leen nuyu yéen Moukhaddamatoul Khidma yépp di leen siyaare ci biir weeru tedd wi ci bu tedd bii te it di rafetlu seen liggéey bii te it di ñaan ci dara yi Sëñ Tuubaa mi nu jàkkaar lool ñu ngeen ci def rek. seen borom fulu li nga ci tuyaabo lu ëpp li ngeen ci li ngeen li ngeen ci séenu suñ tubaab mën na ko yàlla na ko def rafet na ci njott ndax jafin bi sell na rafet na pes seefu itam ba tax na jàpp jàpp nañ ne sëñ Tuubaa ne nangoon na nangoon na liggéey bi tax bu ko nanguwutoon nii mu demee du ñu demee ndax fi ngeen tàmbalee ak fi ngeen yegg si moom moom moom xamal ne liggéey bi sëñ Tuubaa nangu na ko jërëjëf sëñ Amdi kon xam naa laaj bu njëkk bi ñuy laaj rek buñ doon wax sëñ Amdi Bousso euh, bilaal wax naa ko léegi moom sëñ kan ni moom sëñ Bousso be loolu moom doy naa yam waaye ban waxtu la gane jamono man at ci gàttal ndax danga ko mën a tënk. maa ngi jëng ngi gane jamono 1938 euh, ci Gédé. ci Gédé Bousso gii ci Touba. 1938 fii ci Guédé xam naa bu dee njàngum alxuraan ak yooyu moom fii doomi soxna yi di jaar yëpp jaar nga fi ci njàngum alxuraan ak xam-xam. waaw waaw njàngum alxuraan bi moom maa ngi ñu gën gën a gaaw signal yi jëmb jëmb bi maa mu jógee ci njàngum xam-xam yi maa ngi ko jàng suñu Mamadou Koso ci la ci la jàng xam lu seen xam-xam la ko jàngee. ok ginnaaw loolu itam ni ma ko waxee léegi nga doonoon noddukat ci jumaay Tuuba nodd goo xam ne ñëpp ko ràññee muy ñaareelu ak juma gi nga xam ne bari na ñoo xam ne sax daanañ dabu si julli gi ngir neexaayu nodd googu nodd googu ban ban ban at nga ko tàmbalee def. at mi nag moom moom moom moom moo réer waaye nag ñu ngi la simple daal ci la ci la ci la fi ñëwee. moom daal ci xilaaf ak Cheikh Abdoul la moom mooy mooy joxe ndigalal moo wóorloo si jëm xadir am noddikat boo xam ne mbokk lay doon noonu la noonu la ko waxee bi mu ko sëñ Abdou Xaadir nettali ne wax ni ne sëñ Abdou wax loolu fekk am na lu ma sëñ Abdou waxoon ci këram ma ma déggee loolu ma xam ne man man la jubloo wax ba sëñ Abdou Xaadir daane ma jaar ba bàyyi ba ñi ñi ñi fa nekkoon jóg ma ne ko loolu loolu sëñ Abdou santaane de mën naa ko sëñ Abdou Khadre daal di yebal sëñ Modou ak Jili Touré muy bis bu alxames dem na sëñ baat eh, loolu nga santaane day eh, am di bisu mën na ko mu ne kon bu suba bu subaa caa jub ñu tàmbale bi may noot bi may noot it mi ngi mi ngi mi ngi jàkkaarloog man rek di ma xool di ma xool rek ba ma daaneel bi mu sëlmeel ma ne sa sa jëmm si noot jokkee ko wute jimbi si na da koy wute mooy mooy cosaan dëgg la mooy mooy cosaan li nga xam ne bi nga jotee ndigal li rek nga ko daal di tàmbalee ci alxames ji ah, bët seddi ajjuma rek eh, nga daal di ci daal di tàmbale mu mel ne euh, Cheikh Abdoul Khadir euh, nga nga nga nga nga féetee euh, mu mu mu doonoon sa sa sa wasila. waaw mu doonoon sa wasila dañoo ànd dañoo fa ba jot ba subaar di bëgg a jot Sëñ Abdoulaye woo ma ne ma na nga jot ci kaw de maa ngi ci mbaar mi ci julli gi ci lay ànd. Mm, bañ julli tak buñ jullee subaar ba takkusaan jot di bëgg fu ma jàppee romb ko ci mbaar mi ñaari bokk mu ne ma da ngaa bëgg a waaj ma ne ko ma ne ma duggal fii ma dugg ma ma ko romb nag mu ne ma ci mbokk mu ko ah, <laughs> may dégg rek booba fi ne rek waaw. nag muy muy xeetu nodd goo xam ne daanaka mën nañ ne. ci ci ci yow yow yaa ko fent daal ci yow rek lañ ko njëkk dégge xeetu nedd googu ndax lu jiitu loolu dañ cee tàggatu woon wala. man noonu damaa mas a neex rek ma ma koy tàmbali boobu daanaka xaw ma xaw ma xaw ma xaw sax ah daanaka ma sama suñu kër ga. xam ne bu li ma li ma woon li ma lay bant rek ma di ma di ci nodd. faaju fajare am na bi sax sëñ baaxee rek liggéey sëñ baax rek fi mu nekk ak suñ fa sëñ baaxee nekk war naa mat ñetti kilomètre ci ci tool ya mu ne ma yaay noddu foofu fajar ma ne ko waaw ne maa ngi koy dégg de yow rek xam nga waxtu <laughs> damay làmbatu rek de <laughs> waaye ñu gis ne nag jamono yi xëy na mag geek xëy na jotali geek yu mel noonu dugg na ba tax Euh, mel na ne danga mel ni ku jël euh, nodd googu féetale ko kenn ci sa njaboot yi loolu buñ ko doon ban ban ban at la ban waxtu nga ko tàmbalee ak. ya ya guddi moom guddi moom maam mooy nodde damay dikkal te yàlla dogal mooy mën na ko mën na ko su su ma su ma tëlee da ngeen taxaw fi wet su ma tëlee nga yëkkati <laughs> loolu mooy cosaan la waaye nodd yi nga xam ne ñi ngi koy nodd ci jumaa ji ak ay noddukat ndax euh, yéen ñi nga xam ne yéen ay mag jiitu leen ci ndax yéen a ngi leen di lu mel ne jubbanteeg léeg-léegi di déglu yu ngeen war a jubbantiwaat ak yu mel na waaw loolu ci jéem sax waaye nag jaam xam ne seen seen seen neexuñu jubbanti ndax xes nañu la lagg ci seen euh, seen waxin ba euh, neexuñu ci jubbanti ndax man daal léeg-léeg ma wax wax ci ñoom sax waaye nag taxut na ma na ma ko bëgg dëgg-dëgg ñu di ko ñu di ko defee. ok nga xam ne euh, ci gannaaw bu ñu jógee ci wàllu nodd googu itam am beneen liggéey boo xam ne euh, Serigne Sidil Muxtaar euh, radiyallahu anhu yàlla na yàlla yokk leeram tas ci barkeem dénk na la ko muy barabu ku tedd kii Cheikhul Khadim nga di ko wattu loolu itam mm, looñ ci mën a wax. waaw moom Serigne Sidil Muxtaar de moom yàlla dafa dogal mu yàgg ma bëgg lool. booba dara xewgut booba yàgg na lool sax ma di fa dem am ay alaaxaar suñu diggante yàlla yàlla ma dem kër ngan na fekk ko fa boobu comme ñu la ko defal moom moo biir néegam ne ma waaw barab bi xam nga nam daa doxee waaw am na ci lu ma xam de am na ci loo xam ne mën naa ko gëstu ba xam ko maa di koy wax la ma ci bàyyi noonu waxaatuma dara may tam ci bëgg maa nit mu mu mu mu woo Cheikh Bassa moom moo woo mu sëñ nee na bu àllarba ca di nga fekk ci kër ga ñu mu jox ma ndigal ma man nag man nag suñ maamu ngeen ngeen ngeen ànd fa nekk hmm. ngeen di ci diisoo lu ngeen déggoo ngeen wéyal ko lu ngeen déggoo nga bàyyi ko. barkala mu mel ne itam nag même no gannaaw nodd googu itam lu mel ne julli iid yeet daañ lay gis euh, jamonoy Serigne Mourtada euh, jamonoy Serigne Abibu ba ci jamono yi saa yu Serigne bi ñëw yaa fa yaa fay féete di di jottali tam léeg-léeg ndigal yi tam nga di ko jottali loolu itam Euh, xëy na am na loolu ci mën a baaxee. ah loolu dama dama dama dama ne di gën jege te xam naa seen i waxin moo tax jot léegi ma ma ma ma di ko def ko ku ci nekk rek wax na ma moom ay yoon yoon ma xam lu muy waxee ma ma lu ma ko tontoo loolu da moom moo moo moo it bu waxtu boobu li may sa si ñoom lu moo waral loolu moo waral jot li ma tax du du du def loo sax maa ko xam sans sans bopp rek. waaw euh, mu mel ne itam ni nga ko waxee ci njëlbeen gi daayira Muxaddamatul Xidma euh, ñëw di leen jàppale ci liggéey bi te liggéey bi diis na diis goo xam ne euh, laaj na ay ndaw ñëw jàpp ci moo tax daayira Muxaddamatul Xidma ñëw di leen jàppale ci liggéey boobu yow it nga bokk ci mag ñi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma da ngaa nekk seen conseil nekk seen roywaay jamono bu ne nga di leen soññ nag loolu kon xam naa mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ lay bàyyi nga tëjee ko rek bu ko defee ndax xëy na waxtu wi xaw a kii. waaw loolu li ma gis yi ay ndaw yu bëgg lu baax mag nag bu gisee ndaw lu bëgg lu baax war na ko caa jàppale ci wet gu ci wet gu ko mënee ci xalaatam ak ak kàttanam fu gàttam toll moo tax ma gisee ngeen jëm ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ma sawar ci ànd nag ñoom. lépp loo xam ne bëgg naa gis naa bëgg ko gàllankoor waaye itam mm, lu ma ci mën naa ko def ndax sëñ Saliou masama yoonu ci si mm, sëñ Afe man dama bëgg ñu toppatoo góor ñi jigéen ñi muy jaxasoo muy jege ci biir gàmm go itam li wër miir bi mu ci jàngkat yëkkati ñi ne ci ñi ne ci biir toog di toog mel ni Moustapha Samb yor seen tiir dañ nañ ci biir ku yëkkati ko ne nañ ci bitti ak ak ak defar defar defar bale bi ma mu ma mu yéene ci saabe diggante ba amoon na saq-saq tuuti yàlla dogal bi ma affaire téléphoné ci ni ci ma ni fekk ma ni Kër Saalum mu wax ma gàllankoor ma ne ko léegi nag maa ngi ne maa ngi ne fi sëñ bi léegi maa ngi ne jàkkaarloo mu naa yegg foofu ma yeggee ma nettali ko loolu mu ne bu subaa nañ tàmbali bu subaa bu subaa nañ tàmbali kooku bu loolu bëggut ci liggéeyam <laughs> loolu bëggut ci liggéeyam <laughs> hmm. waaw Euh, muy lu muy muy lu am solo euh, jërë jërë jërëjëf jërëjëf yàlla def tawfeex itam euh, liy firndeel ne mu daayira Muxaddamatul Xidma boobu seenub liggéey yaa ngi koy rafetlu di leen soññ sa njabootug bopp yëpp ñu ngi ci biir daayira boobu ànd ci liggéey bi passé fu ci loolu tam ta ràññeeku ci ñu ñu la koy seeral itam di bëgg nga gën leen a ñaanal suñu borom kàttanal leen ba ñuy gën di mën a liggéey Serigne Touba waaw kon xam naa waxtu yi day bëgg kii tey waxtu koor week yooyu ñi ak temps bi ñu xaw a jël mu xaw a bari mel na jariñoo nañ ci lu am solo loo xamante ni dañ ko mën a yóbbuloo ci jaar jaari sëriñ am di Bousso ci jumaay Touba euh, kon mbokk yi ñu doon seetaan ci seen émission yow la lii lañ leen indiloon tey ci euh, sëriñ Amdi Bousso Bilal di noddukat ni ma ko waxee ci jumaay Touba ku yàgg a ñëw ci jumaa ji surtout jamono Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo daan nodd noddu ñaareelu noddu gi ci jumaa ji waaye itam euh, Serigne Chiril Muxtaar bokk ci ñi nga xam ne ñoom la dénk barabu Cheikhul Khadim bi ñu di ko saytu di ko toppatoo mu def ci liggéey bu am solo kon lii lañ leen indiloon tey di leen dig daje beneen yoon ak ci beneen numéro ak ci keneen ku ñu war a xamlewaat ci magi jumaa ji wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.